ñu ngi am mbégte dalal président Aymérou Gningue mu jiite groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar président ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. waaw Fatou am maa ngi lay nuyu bu baax di am mbégte itam sax boo may dalal rek ci sa rajo bi. pour euh, ñëw daal waxtaan ak yow waxtaan ak réew mi. alors euh, démb assemblée nationale euh, tàmbali na ci dimanche bi euh, plénière yi ñeel tënk budget yi nga xam ni moom la ñu jagleel département yi nekk ci réew mi ministère yi ak institution yi lu ko jiitu nag am na liggéey yu ngeen jot a def en commission lan la ñu mun a jàpp ci liggéey yooyu ak maraton budgétaire bi tàmbali démb ci dimanche bi aussi lan lañ ci mun a xaar. waaw d'abord di rafetlu sa laaj bi di wax ni fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom-ñaar weesu yépp ñoo ngi fii. di càmbar euh, budget bi nga xamee ni mooy koppar yi nga xamee moom la ñu jox département ministériel. Euh, ministre yëpp jaar nañ fi mat nañu fanweeri ministère ak ñett bu ñu fi jaaree ñu waxtaan ci seeni euh, koppar seet ko xayma ko liñ ci mën a jàpp nag mooy ren budget Sénégal pour la première fois mooy mu jëkk jéggi na tey juróomi junni milliards ci xaalis mu nekk budget bu am solo boo xamee ni su ma ko mënee wax mooy dañ ko séddale ministères yi waaye nag ministères yi nga xam ni ñoom ñoo ci ëppale mooy ministère bi nga xam ne ñoo yor mbirum jàng bi muy jàng bu ndawe bi ak jàng bu kawe bi ak jàng bi nga xamante ne dañu ni formation professionnelle la mooy jàngal xale yu métier parce que réew dafa nekk loo xam ne soo bëggee mu dem ëllëg da ngay jàngal ndaw ñi jox leen xam-xam yar leen itam ba nit ki xam lan mooy ay droit am waaye mu xam itam lan mooy ay devoir am mooy lan mu la waral lan mooy warteefam ci biir réew loolu nag soo ko boolee ak li nga xamee mooy budget yi nga xamee dafa war a jëm ci aar réew mi nga xamee moo jëm ci suñu armée bi nga xamee ni nii ñoom wax dëgg yàlla Sénégal war nañu sant yàlla parce que boo xoolee fi ñu toll ci àdduna ak jàmm ji yàlla def Sénégal lu ñu ci def doyul loolu tam dafa am solo wëlbatikuwaat tam nag dem ci mbaykat yi parce que Sénégal téeméeri nit yoo jël juróom benn fukk yi ba juróom ñaar fukk yi ci mbay rek la ñuy dunde mu nekk loo xamee ni euh, gouvernement bi dafa xayma ci xalaat loolu ñuy wax plan wax ni dafa am ñaari yëf yoo xam ne dafa war a am doole ci Sénégal mooy Sénégal fexe ba di bay lu muy dunde Sénégal tam fexe ba nit bu feebaree mën a faju parce que dañuy wax ni xiif lekk feebar faju loolu daal suñu ko réglé cim réew leneen lu ñu mën a def yaakaar naa ni boo amee jàmm ñoo aar la ba kenn du jógee ci biti ñëw di la faagagal nga fexe ba boo xiifee nga lekk nga fexe ba boo feebaree nga faju jàpp naa ni li ci des doomu adama war na ko mën a bu defal boppam liggéey yi ci commission bi naka la demee woon dañuy dee faral di dégg ni opposition bi def nañu nii def nañu ne wala ñëwuñu sax ndax bii jaar na yoon waaw am na am na ñuy ñëw am na ñuy ñëwul xam nga am na opposant yoo xam ne fi mu nekk nii seen bopp rek mooy nekk ci xëy di jongante ci maire yi ñooñu kenn gisu bien que ñun nag ñu ñu ngi jongante ci maire yi waaye nag ñun mënuñoo euh, manqué ci assemblée nationale moo tax man bis bu nekk maak ngi ñëw pourtant de damay jongante ci maire yi mais am na ñoo xam ne dañu bëgg a jongante ci maire yi mais kenn gisu leen assemblée mais loolu di yëpp mën nañ ko nangu parce que nit ki euh, fu mu toll rek day seet li nga xamee ni moom moo ko gën a soxal mu nekk ca loola. mais daal ni ma ko mën a waxee bu fekkee opposition bi nga xam ne dañu am groupe parlementaire. mooy groupe liberté et démocratie. ak non inscrits yi nga xam ne ñëw nañu parce que ki leen doon représenté mooy madame Oulimata Guiro. seen taxawaay rafet na. waxtaan nañu sax ba trouver benn code de conduite boo xamee ni ñun ñëpp ñoo ci juboo hmm. nii budget bi nii lañ koy doxale loolu tam bi biñ ko waxtaanee ñun ñëpp ñi ngi sàmmonteeg loolu hmm. ba fi mu nekk nii ñun ñëpp daal ñoo def nañu liggéey bi ci amin bu rafet ñu dugg nag ci plénière yi euh, bu ñu duggee ci plénière comme dugg nañ ci léegi tam loolu itam ñoo ngi koy jéem a rafetal hmm. pour que lépp daal mën a jaar yoon ñu xam ni Sénégal rek lañ fi nekkal askan wi lañ fi nekkal mais itam lii nga xamee mooy euh, loi de finance constitution bi moom moo ñu ko moo ñu wax ne su ngeen ubbee assemblée nationale bala muy am juróom benn fukki fan il faut ngeen voté ko te bu ñu ko votéwul réew mi day nërmeelu parce que bu boobaa état bi du mën a dugal alal du mën a tam génne alal pour fay nit léegi budget boobu wax nañu ne am na ay yokkute ñeel yenn institution yu mel ni présidence euh, lan moo expliquer yooyu yokkute ci jamono joo xamee ni xëy na koom-koom bi xaw na sooxe ci àdduna bi yëpp d'ailleurs au Sénégal également waaw d'abord euh, li may wax ne euh, ñun budget bi boo ko xoolee da ngay gis ne que ñi ngi xalaat ne ren ji ci deux mille vingt et ñun suñu koom-koom dina yéeg de cinq pour cent mooy téeméer bu nekk dinañ ci yokku dërëm ah loolu nag yéeg la parce que boo xoolee àdduna wërngal këpp ñu ci bëri seen euh, croissance mooy seen yokkute koom-koom bu fekkee ni wàññeekuwul itam dafa nekk sero mooy yéegul yàlla nag dimbali nañu malgré feebar bi daaw amoon nañu un virgule cinq pour cent ren dañu am cinq kon li ñu prévoir itam ci budget bi di ñëw moom mooy ñu dépasser loolu bay egsi six pour cent kon nag euh, koom-koom bi mi ngi yokku koom-koom nag su fekkee dafay yokk il faut que dépense loolu mooy indi lii te itam bu ñu fàtte mukk ci ni président de la république dafa jël ay mesures yoo xamee ni dafa wax ni dañuy wàññi train de vie de l'état mooy oto yi daal dootuma ko jënd mu wax ko ni li état bi daan loué di ko loué di ko fay ay nit damay fexe ba ma tabax loo xamee ni su ma état bi soxlaa dañ fay dem dugg fa di fa liggéey looloo indi les sphères de Diamniadio fexe itam ba nit ñi nga xam ne dañ leen daan dëkkal ñu jox leen ay indemnité bañati leen dëkkal parce que dëkkal bi dafay gën a cher économie yooyu ñu def ci yooyu nag économie boo ci gis rek dafa am feneen fuñ ko dugal parce que dama wax nii àdduna dafa toll foo xamee ni euh, bu njëkk ba dañuy wax nii nañu def croissance mooy nañu yokk koom-koom mais gis nga koom-koom soo ko yokkee dafa war a dem ci ñaari mbir dafa war a dem ci njàngu xale yi dafa war a dem ci wér yaramu doomu adama yi mais dafa war a dem feneen mooy naka la ñuy def ba suñu sécurité ñu yokk ko parce que nag nit bala muy tal dara dafa fekk mu nekk ci jàmm ku nekkul ci jàmm doo tal dara loolu moo tax suñu armee ak suñu police mooy force de défense et de sécurité ñu leen di yokkal ay nit di ci recruter ay nit xam ngeen ne xëyu ndaw mi tam li nga xam ne président jël na ko muy cent cinquante milliards ñu xayma ko pour dugal ko at bu nekk ci xëyu ndaw yi te muy war a recruter soixante cinq mille personnes mooy juróom benn fukki junni ak juróom loolu Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba tey kenn mësu ko gis te mu dugal leen ci fonction publique kon nag loolu yëpp dafa nekk yoo xame ni la ngay économiser di ko yaxanal ci secteur yooyu moom ngay jël di ko dugal fii alors euh, réew mi nag euh, gën di metti ndax gis nañu njëgu dund gi yu ci bari dafa yokk ceeb ak dëwlin nag yi nga xam ne askan bi dañ koy jëfandikoo saa su ne seen naataango Mamadou Lamine Diallo sax ne mettit bi kanam la jëm nañu xaar lu gën a tax yéen lan ngeen di kon euh, préconiser digal état ngir askan bi yëf yi gën a woyof ci ñoom. waaw dafa mel ni bu fekkoon ni état bi deful woon dara kon yëf yi dina gën a metti parce que comme ni ma ko waxee bu bi mu demee ba nga xam ne dafa am mbas. réew yi nga xamee ni dañu amoon dañ daan bay ceeb wala ñuy bay mboq wala ñuy jaay euh, leneen da ngay gis ni ku ci nekk da ngay jéem a téye li nga produire moo loolu la tubaab di wax ni euh, jënd kat su ñëwee ci marché bi te la muy bëgg a jënd du ko fekk parce que dafa yeex mm. parce que dafa raar prix yi njëg yi dafay yéeg parce que marché du dara lu dul la rencontre de l'offre et de la demande léegi nag Euh, bu melee noonu li li may war a jëkk a wax mooy sénégalais yi dafa am loo xam ne dafa ñu war tey mooy ñu seet naka la ñuy def ba li ñuy bay ñu koy dunde loolu dafa am importance Fatou parce que euh, nit pour mu am dignité pour mu garder ngorom il faut mu muñ boppam parce que yow boo nekk ci sa kër tey ma maag yow ñu xëy te bu mu wóor ñu ni bu ñu xëyee dañuy dem yalwaani dépense wala ñu ñaan ñaanu ko mm. dafay am luy denc ci ñun parce que suñu dignité dootul dootul mën a mat gis nga noonu mu nekk ci nit noonu la nekk ci réew réew bu nekk dafa war a góor ba li muy dundee mu koy réew bu nekk dafa war a góorgóorlu ba bu nit feebaree ci biir réew mi ñu mën koo faj ci biir réew barki démb rek yaa ngi gis président di teg xeeru polyclinique fii ci hôpital parce que loolu dafa am solo parce que nit dafa feebar mais dañ ko yóbbu Maroc wala dañ ko yóbbu Tunisie muy faju mais gàcce la kon nag lépp lu ñu war a mën a def ba ñun ñu mën a góorgóor ba ku feebar ñu mën la faj fii bu ba yàlla ñëw ak dogalam loolu dañ ko war a def parce que loolu mooy li nga xamee moo war ah léegi nag li nga wax dëgg la mais dama la bëggoon fàttali ni état bi keroog bi nga xamee ni nii yëfu transport bi dafay yokk mu xam ni dafay ñëw directement yokk ci njëgu dund bi li mu jëkk def mooy mu renoncé ci quarante sept milliards loolu Sénégal yëpp xam nañ ci ay taxes yoo xam moo ko moomoon tey mbirum gasoil bi ak essence bi ku ne xam nga ni bari barigo pétrole mi ngi doon jar quarante dollars léegi tey mi ngi jar quatre-vingts dollars kon bu doon jar dërëm léegi ñaar dërëm lay jar bu fekkoon dañuy appliquer vérité des prix yokkoon nañ ko bu yàgg mais loolu xam ne soo ko yokkee euh, transport bi yokk mu gën a chair usines yi sax yokku parce que euh, énergie dafa nekk fépp courant bi yokku lépp yokk kon loolu président actuellement gouvernement bi weer wu dee ñoo ngi ciy def dix milliards chaque fois bu ñu defee structure des prix xamal ni dix milliards génne nañ ko ci at bi day nekk cent vingt milliards soo ko yokkee tey ci quarante sept milliards yooyu dafay nekk presque cent soixante sept milliards ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni xañ na boo ko doon xayma dina dem bu deux cent milliards. loolu nag su ko état defee ñun ñëpp nañu jàpp ni effort bu am solo la. boo xam ne tey su ko deful woon li ñuy jooy naan euh, saaku ceeb mi ngi ci treize mille cinq cent. xañ na kon quinze mille lay dem wala mu dem seize mille. waaye ndax loolu mën naa sax. waaw dina metti mais mënul sax li li koy dindi nag mooy yow ak man ak keneen ku mel ni ñun mooy d'abord ñu seet bu fekkee ni dugub dafa baax ci ñun ñu am ko. Mm. te bu ngoonee bu ñu toggee cere moo gën maa ngi koy wax xam nga man nitu àll bi laa. <laughs> léegi jigéen ñi ci àll bi mm. parfois. togg ceeb ngoon moo leen di gënal togg mbaxal ngoon moo leen gënal togg cere parce que dañ naan processus pour togg cere dafay jafe parce que dangay soq boo soqee bu bari da ngay wol boo wolee dangay ngay mooñ boo mooñee da ngay tey te ceeb bi da ngay sebet rek daal di sóor alors yooyu il faut mu génn suñu bopp yi ñu xam ni lii ñu am dañ ko mooy loolu moo tax may wax ni nit ku nekk da nga ci war a am sa conscience su bopp mais itam dañ ci war a liggéey pour yee nit ñi conscientiser nit ñi pour ñu xam ni lii pour ñu am suñu dignité bopp daal mhm. il faut li ñuy bay ñu koy lekk moom loolu mën naa ko wax ci ndambe mhm. mais xëy lekk ndambe wala nga xëy lekk fonde mhm. mais man xam naa ni moo gën que jël benn mburu di ko lekk blé boo xamee ñoom ko mais <laughs> doy na war voilà euh, ñu jeexal ak euh, local yi président ñu bëri euh, ñu ngi am xel ñaar ci opposition bi wax ne xëy na waa boor be yéen nguur gi da ngeen bëgg dàq local yi. Mm. loolaa waral xëy na ministère de l' intérieur mooy ci recours yi. Mm. dugal na fukki recours ak benn. gannaaw bi cour d' appel jëlee dogal ci liste yi ñu rejeté woon est ce que yaakaaroon ne loola mën naa indi jafe-jafe ci élection yi. góobu ko parce que élection yi président dafa signé xam nga président bu signé décret wax ni dañu bëgg def élection yi le 23 lu koy toxal dina jafe. te itam Fatou dama lay bëgg a wax ni eh, Sénégal eh, eh, gox yi ñuy joxan joŋante mat na juróom benn téeméer ak benn xam nga juróom benn téeméer ak benn ñuy wax fukki dëkk fukki gox bari na sax gaa waaye nag nañu dama bëgg rek ñu delloo yëf yi fi ñu ko war a delloo bañ ko yóbbu fu mu yeggul beneen bi ci des mooy processus électoral mooy ni ñuy waajale élection nekkul lu simple loolu moo tax bala muy ñëw préfet yi dañu woote bi ñuy wootee du ñu woote sax nag dañuy xool rek fu responsable politique nekk rek ñu woo ko man en tout cas fa ma nekkoon woo nañ fa fukki nit ak ñett pourtant ñeenti liste rek ñoo fa déposé mais lii ma li ma jaaxal Fatou mooy nit ñi da leen di woo pour jàngal leen wala nga wax leen wala nga yee leen ci ni ñuy defaree sax du ñu ñëw bu ñu paree nag di yuuxu mais ki préfet woon ni ko dama bëggoon nga ñëw ñu seet ma wax leen processus électoral bi naan na ngeen di war a def kañ ngeen di déposer lii kañ ngeen di def lii waay waay waay boo amul xam-xam bi waaye waay waay nga nga nga nga nga nangu dem wuyu ji bopp alxuraan moo wax loolu mm-hmm. nee na di leen laaj yéen ñi xamul <laughs> laaj leen bu kan ngeen di laaj laaj leen ñu xam mm-hmm. fas allu ahlal zikri in kuntum la taxlamun mais loolu nit ñi dañu doy war mm-hmm. su ko defee nag bu yëfi jàllee ñuy yuuxu mais ñuy yuuxu ñaare dañu tooñ léegi nag préfet bi nga xam ne dafa rejeté listam listu nit ah kooku dem cour d'appel cour d'appel ni non préfet yi bu waruñu woon rejeté mais préfet tam doomu adama la bu bindee mémoire à défense pour wax lan moo koy lan moo tax mu rejeté ko dem ci cour euh, euh, ci cour suprême waaye nañ ko may loolu parce que àdduna justice ni muy doxe ci Sénégal parce que Sénégal réewu démocratie la moo tax bu ñu la condamné rek du ñu daal di ni ah comme condamné la jeex nañ dañ lay may yoon daf lay may nga demaat def appel mooy dem ni ah déedéet man d'accord ma ba bu demee nag cour suprême nag ba cour suprême nag décidé ah li cour suprême décidé nag kenn mënu ci wax dara bu boobaa nag mu neex la mu naqaril da ngay nangu nii lii la cour suprême wax loolu nag ci réew bu am justice rek te justice nag mooy ponk bi nga xamee ni moom mooy mbaar bi nga xamee ni wala mooy keno bi nga xamee ni ñun ñëpp dañ ko war a dëgëral parce que fu mu màbb rek xamal ni lépp yàqu loolu moo tax wax dëgg yàlla jàpp naa ni nañu bàyyi rek yëf yi dem ci yoon parce que xam nga man du ma ñaaree wax ci loo xam ne dafa nekk ci yoon waaye nag nit daal am na sañ-sañ suñu ko condamné mu dem recours bu demee recours bii ñu condamné waat ko mu dem ba fa mbaxane doone benn xam nga Sénégal euh, olof dafay wax mbaxane fi mu doone benn mm-hmm. mais fii fi mbaxane doone benn dëgg-dëgg mm-hmm. mooy cour suprême que comme yow bu ñu la waxee fii mën nga jàll ca kaw mm-hmm. fa mu benn dëgg-dëgg njombaxtal li njombaxtal li moom mooy cour suprême kon nañ ko xaar lu mu wax rek ñu def ko waaye li wóor mooy élection yi dina am incha allah rabbi jërëjëf président Aymérou Gningue jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu FM tey waaw maa ngi lay sant Fatou di waxtaan nag sama mbégte chaque fois boo ma invité pour ma ñëw waxtaan ak yow waxtaan ak réew mi man tam mag lay ñaanal yàlla yàlla jàppale la taxawu la te sàmm la. amiin jërëjëf